maa ngi lay nga xew te doo xewi <laughs> xew daal du caaxaan. xew daal du caaxaan Baye Cheikh. Eh, xam naa si Cheikh. comme waxtu bi dafa jot le temps internet yi ak gars yi dem di yeesal. te ñoom xam naa à tout moment mën nañoo dem balaa ñoo dem dafa am hmm. tout tànk yi benn kii boo xamante ne dañ ko defalal sëñ Moussa. ñu daal di koy indi ko defee comme Baye Cheikh mooy seen porte. Baye Cheikh waaw Baye Cheikh. sëñ Moussa bu ko defee mu jóg yéen ndaxte ñoom ñoo bokk boole seen bopp tamit doon benn. ñëwal Moussa Touré lool ñëwal taxawal nii ay ci ñëwal Moussa Touré ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal nii. waaw ñëwal. Aya Xaadim si la. yéen ñëpp ñëw leen ngeen a ñëw. ñëw leen sëñ Abdourahmane. Eh, yow moom malien nga boo ñëwee sax baax na boo ñëwul baax na am problème. muy noonu. Eh, lii lii lii mu nekk loo lii lii lii na de. ndeysaan. laa ilaaha ndeysaan. sëñ bi sëñ bi waaye sëñ bi rek kay sëñ bi. am na lu ngeen déggule de walaay baa Cheikh gi ci suuf daal laa gëm mhm. ñu ngi ziyaaraat ñëpp. Mhm. jox seen wàccuwaay. Mhm. lii tuwaarkal la. rafet na trop. sëñ Tuubaa rek ko mën am. ndeysaan. sëñ Tuubaa ko mën am. Eh. kon ñu sant tamit sëñ Moussa Seye mii. di sant sant waajuram bu góor ak bu jigéen di leen sant bu baax a baax ñun daal suñu xol tooy na koy ñaanal bu baax baax a baax di ñaanal mbokku taalibe bu fi toog ak ñi nga xam si ni ñooy euh, jàmbaari Sëñ Tuubaa ñoo fi nekk muy si Moussa ñoom ñëpp maa ngi leen bu baax jàmbaari Sëñ Tuubaa tey bu leen kenn jàppee dara hmm. jàmbaar Sëñ Tuubaa te ñitti Sëñ Tuubaa tey ak ëllëg nag ndax ñoo nekk ci loo xam si ni ak xasida la xasida lañ nekk loo xam si ni Sëñ ku ci sonn la woon xasida yi moomu diggante géejam géej kon ñu leen di baax yi ñëpp yi képp ku fi teew nga xam si ni la nga xalaat sa xel pour def ko Sëñ Tuubaa may la ko ku nekk tamit ma ngi tuub nag ku nek tamit amoo fi soxna yalla yalla fusal soxna. waxar ko waxar ko waxar ko way ñi nga xam ci ni nak waxar ko. ko ko xam ci ni am fi am nga bëgg soxna. yalla may la way amin way bay Cheikh wa wuy ma wuy ma wuy ma man dama doon deg ñu naan da nga yor ñetti soxna ah yaa ngeeg ñaata. non non yoruma dara. yoro dara mais bëgg nga bëgg nga. ah bëgg nga. bëgguma de ci kanam. ah ci kanam ak kanam. Baye Cheikh xam naa ki maam jaara waaj laa lay ko defee moom laa lay may. waa ka sëñ Moussa Seye yu jigéen <laughs> waaj laa koy laa koy dencal ay ca sëñ Moussa jox la nga sànni ci say kàddu yow tamit. ñu ngi leen di ziar baax di leen wax ne kontaan nañ baax ndax lii moom daa nekk loo xam ne daa kawe suñu njort ñu ngi leen di ñaanal baax yéen tamit yàlla guddal seen fan wéree seen kër. di ziar bax suñu magu jankat bi sing bay cheikh ñu ngi koy ziar bax ak sing omar sing bay zal sing musa sing khadim ñu ngi leen di ziar bax di leen jox seen wàccu way waaw di leen wax ne nak begg nañ contane nañ lool sax ñu ngi leen di ziar bax ak sing ñu defal la teranga ju reey ji ñew décorer la defal lu am solo li ñom ñay ndeysaan muy muy muy lu daw yaram muy lu doy waat bu ko ñepp bu ñu ko yëkkatee ñëpp yuxu ñepp ñëpp a tudd ngir taaru gi mu taaru moxtaar gi moxtaar lii ñu la defal muy njukkal lu rëy ak yëg-yëg bi ñu am ci yow. waaw xanaa dañ siy bëgg rek dis kontaan ndax tout tànk yi moom lu ma leen wax rek dañuy gën a góorlu liggéey Sëñ tuwaab moom amul ay caaxaan boo xasee ba nekk rek nekk si rek te xam ne lépp dina la fekk si incha allahu rabbi. sëñ Moussa joxoon ma sama micro bi parce que gis naa ne moom ba ñu duggee ci baas ba léegi waxagut moom tamit Moussa ni ay kàddoom. ayca. <laughs> asalaamaaleykum mbokk fi jooy nag hmm. demal asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mm-hmm. leen ziar baax a baax mm-hmm. du ñuy ñëpp di leen ziar baax mm-hmm. ak sëñ baaji li bëgg soos ñuy ziar ñëpp di leen di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ziar suñu mag sëñ baay seex di ko ziar baax a baax xam nga xam nga lu tax ma bëgg ma jox ko micro bi ndeysaan xam nga moom son yi bu mhm. moom dafa bokk ci tout tànk yi nga xamante ne bokk a bëgg peut-être loolu mhm. daa gis dama dindi xool ci kaw ne ma eh kii ku garaaw booy bu garaaw baa ngi li muy wax ma ne ko mais jooyee ko yàq ay ca bu baax a baax nee naa nee naa sànq Moussa Mara koy def moom nañ ko waa kër sëñ bu de moom moo ko gedd ah loolu ah, moom moom xam nga daa bëri ay ay bagage nag sang yaaram baal yooyu <laughs> nit ñi dañ laa bëgg bu la nit ñi bëgg sagool loolu tabarkàlla jërëjëf ayca mën ngeen delluwaat seen place ayca tubaarkàlla mu mel ni mi ngi noonu euh, nabu euh, ñi ngi soxna soxna nabu mu Serigne Sali ya, xoolal fa mu teg veer ya xoolal fa mu teg veer ya man nag man nag am naa lu ma metti parce que bëgg naa ko am après ci kanam ci plateau bi waaw nañ ma ko nabu damaa bëgg ñu waajalal ko su ko defee mu ñëw jigee suñu toogal nga def ni ayca nabu nabu danaa ko am ci kanam waaw ndeysaan tubaarkàlla bàyyi ji li Cheikh nee na mu joon ba ayca jëkkatil kii bu mu jël mbaxana mi lii am na solo yàlla na yàlla dolli jàmm euh, tabarkaala mi ngi noonu yéen a ngi am euh, bis bi nga xam ne mooy bisu sëñ Moussa mu ne anniversaire bi yéen a ngi koy en direct ci Mafatihul Bichri TV international waaye nag euh, Moussa Seye l'officiel muy waa kër sëñ Moussa Seye TV sëriñ Mor Ñang tabarkaala moo ne ci réseau ba technicien bu baax bi yàlla yàlla defal la jàmm gis nañu gis nañu taxawaay bu rafet bi nga ànd ak sëñ Mor Mbay ak euh, sëñ Fallou gars yi guwaar euh, yëpp ñu ngi leen di nuyu di ñu ñuy seetaan ci internet bi ñëpp ñuy topp ñu ngi leen di jaajëfal soppe yi euh, am di jàmm yi ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel bàyyi jili mu mel ne waxtu yi mi ngi ñuy xoj xam waa